kenn warul dugg ci géew bi kenn waru koo jege arbitre bi sifflé na ndaysaan Libidor Toubacouta Libidor moo la féete ginnaaw Toubacouta moom nga jàkkaar lool ñoom ñaar yàgg nañoo daje ñoom ñaar yàgg nañoo daje ndaysaan Toubacouta Libidor Libidor Toubacouta ñoom ñaar fu ñuy lan mooy xew ci combat bi mbot wala faqat wala paqueté lan mooy xew daw na jàpp na ko Libidor Libidor ndeysaan Libidor Toubacouta Toubacouta nga koy jéem a sol mu ngi koy jéem a bal ndeysaan koy jéem a bal mu ngi koy jéem a bal pour ko Toubacouta Libidor Touba Kouta Libidor ndaysaan ñu ngi noonu Libidor Touba Kouta ñu ngi ci combat bi ndaysaan Libidor Touba Kouta dara xewagul Senghor ya sànni na ko moom Libidor Senghor kalla ay sangooram wala sangooru Tubaakuta cey ndeysaan mbër yu ci bari ay ngemb yu bees tàkk lañ ngemboo indi moo xam mbër mu ngemboo ngemb lu ñuul moo xam ngër mbër mu ngemboo ngemb lu weex waaye bari na ay mbër yu changé ngemb indi ay ngemb yu bees daw na jëli ko Libidor ndeysaan Libidor Libidor ak Toubacouta ndeysaan Libidor Toubacouta